dina encore mu ñëw aca sum kay kooku seer na ma na waaw kooku seer na ma na seer na ma aca seer na ma aca sum sama kay kooku seer na ma na Sayer Ndamba mu nekk noonu match passé moom la koy fay daan final waaw waaw moom la koy fay daan final ndeysaan waaw doom aja beneen champion noonu champion fa la si fa nenoo waaw champion fa la si foo jan l'instant du ñaan mo woté le 29 octobre 2023 tégal bëgg la mëna def français parti ci grand yoff waaw waaw fi grand yoff ah nur ad nur dan kilo itu juga pamian ku